ami site internet net bi tv li gën a xabar nag dañ koy door rek Pape Alé Niang nga xamante ne rek ni ji nag doon na dem fi nga xamante ne moom mooy ca palais de justice bi nag ngir restriction yi nga xamante ne nag ko imposé woon ginnaaw bu ñu ko placé sous contrôle judiciaire moom nag la mu daal xam ne rek nee na fii ak weer nag demul fi nga xamante ne nag moom ca boobu les palais de justice waaye nag ba fa demee fekkul fa benn escadron boo xamante rek dafay xeetoo ko gendarme la boo xamante ne ma ngay veillé ci kaaraange jógeekoo ndax bu mu ñëwee ci ne nag moom moo jëm fi nga xamante ne nag moom mooy ca bureau Mamadou ay nit ay nit ne nag ñu toog ci suuf ci seen visage daal di triste lool kanam ci mbir mu nu mel nag nee na yaramam dafa daw ba fi mu taxaw rek xamul rek nan lay sentir ginnaaw bu mu gisee yooyu leen nit mu gis ne rek seen i a manqué na leen lool te jamono ji nag tëj biñ leen tëj ràpp ci kaso yi nag ba noppi teg leen condition yoo xamante ne ñu kenn kenn mënta supporter la duñ lekk ba suux duñu naan ba mandi mu nekk regard boo xamante ne rek ba mu ko seetee ba seetaatal bu daw ak ñeewantal dëgg-dëgg la ci daal di am ba daal di tuur li nga xamante ne nag moom mooy ay rongañam moom Pape Alé Niang nag la lu xam ne rek moo di yi nga xamante ne nag duñ leen mës a fàtte ci histoire Sénégal nag mu ngi mel ni ku ci mel ni Kéba Mbaye kenn du ko mës a fàtte Souleymane Teliko ak ñeneen ak ñeneen wante nag rek moo ñor président de la république faagaagal li nga xamante ne nag moom mooy askanam rawatina jeunesse bu Sénégal Sénégal boo xamante ne rek ci sëngeem dong lay nekk du ñàkk dinañ ci ñëwaat yeneen yu jotaay xabaar dina ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné ba saale cloche de notification